xam ne lamb yi ñu bëgg wax ak moom yaakaar naa war na cee wax muy lambu Bombardier ak ama seen ñi ko tëgg di waa Leewtoo Pape Thialis Faye jiite leen moom nag yàlla def na am na diggante bu sincère ak Pape Thialis moo tax nag tey ñu bëgg waxtaan ak moom ci luttetv.com mu jàngatal ñu combat bi muy suñu tonton Mbaye Guèye Ndiaye ñu gën ko xam ci trop petit ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di fay maa ngi nuy waa senegal gi xam nga li ngay wax si làmb man dama tëgg dama bëree. kooku képp kuy mbër xam nga loolu parce mbër mu moo sa daan <laughs> amul si làmb ji passé bi ñu teree bëre ba léegi amul yu ñu war a mën a réer si làmb bon donc ci làmb léegi ngor rek la ak jom ci combat bu dangereux ngeen nekk si diggante Bombardier ak Eumeu Sène donc loolu ngay wax noonu si làmb ji Eumeu seen ku nekk xam ne champion la kooku kenn waxatu ko pour ëmmat seen mën na bëri rek kooku weñ sax xam nañ ko kooku moom kenn waxatu ko mais Bombardier comme li ma leen di wax dafa dégg léegi daal mooy que euh, dafa ñàkkoon courant bi dem jëlaat ko téye ko xam li mu bëgg ba am combat ëmmat seen ñëw pour jël si courant bi kon kooku reyante dëgg neewuma la ëmmat seen mënoon daan euh, Bombardier parce que yàlla moom moom jël boo gisee encadrement bi foog amat seen entraîné dëgg dëgg dëgg dëgg pour daan Bombardier parce que Bombardier fi mu toll nii am na position boo xam ne mi ngi taxaw comme li mu wax rek ganaar gi boof na si ay nanam te ginaar gu boofee si ay nanam xam ngeen ne ginaar mu soxaree si bu amee doom kon waxin ak dégg-dégg boobu amat seen na ko dama ñëw pour jël si ko yóbbu ko waa Pikine parce que dañ ma yónni kon combat bu war a mën a neex lay doon bon donc foog amat seen am foog mu am déplacement pour mën a jël coup Bombardier foog mu xool fan la mën a jaar pour Bombardier dugg si fly Bombardier lu am mooy tëj Eumeu Sène wàcc dox di ko xool di ko seetaan bu dul lool la Eumeu seen jaar si ay flyam te Eumeu seen amul fu mën a jaar si Bombardier lu dul ay flyam donc te euh, Bombardier làmb léegi yëngalatu ko parce que képp kuy champion daan la quand même donc am na doole tubaar fukkàlla donc mat na mbër parce que mbër la aussi am na fit xale la mu ngi day ni ñoom ma seen tamit ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam parce que aussi donc xale la boo xam ne donc man géwël laa donc mais da ngay wax li nga xam ne que mu mais la mais euh, Bombardier man sama fit ñemewu ko te ni ma ko gisee nii muy entraîné pour nit daanaat ko problème lay doon waaw nga yaakaar am parce que Eumeu Sène damay faral di dégg ñu bëri ñu naan dafa ay ci mbër moo xam ne ponkal la maanaam da nga amee gabari ñu gis ci ay sulay doob ak ay mbër yu bëri fu mu jaar ak ñoom ci ay combat yoo xam ne combat yu intense la ba daan leen. non ñu bokkuñu bokkuñu ak Bombardier parce que Bombardier déjà ñaata bet la. un mètre quatre vingt quinze donc buy Eumeu Sène di ñëw Bombardier da ko gis lii avantage Bombardier mooy. dama ne la bu yeewul woon léegi dafa yeewu gis nga tey daf lay ëmb tëj la écarté tànk yi parce que du taxaw jàkkaar ak yow pour taxabal bi te léegi nag dégg na daale parce que boo gisee ni mu bëree ak Tapha Gueye ni mu bëree ak Balla Gaye dafa toog ku si nekk xoolal te ñooñu ñëpp ay ndaanaan lan kenn daax leen bëri si làmb ji Modou Lo kenn daaxu ba mais nan waxante dëgg kon donc te toll na foo xam ne fi toll ni pour nit jël ko da ngay dem neexali Bombardier déggoo li ma laa de da ngay dem kër Bombardier jox ko 5 millions na ko mayoo ma daal la man maa la wax loolu. Eumeu Sène nga yaakaar ci technicité mag bagaaram ak yooyu amul lu ko war a may mu mën a daan mu indil Bombardier ay jafe-jafe ba daan ko. parce que dañu réeréem na Bombardier du ngaakati boo xoolee kombaam xoolee kombaam ak Tapha Gueye yu nekk Tapha Gueye def na ko mu ëmb ko xoolee ak euh, Modou Lo xoolee kombaam ak Balla Gaye te ñoo ñëpp ay ndaanaan la xoolal dama lay wax li mu dama lay wax exemple mooy ndaanaan yi fi nekk yëpp daan na leen. mais tey tey Eumeu Sène kon yow su ma la déggee dafa mel ni Eumeu Sène amul benn avantage si si si Bombardier. man gisuma ko xam nga ku nekk ak li nga gis la mais man li ma gis dëgg pour ba mu Eumeu Sène Eumeu Sène entraîné pour Bombardier ah dina am coffre ak condition bu bëri de ak daw coup boo xam ne du ko Bombardier du ko laal. pourtant dégg nañ fan yii si ku mel ne Amadou Kati Diop ñu koy nuyu di ko jaar xam nga ko bu baax a baax moom ne na Eumeu Sène il faut mu xeex ak Bombardier su bëggee am caabi combat bi. <laughs> mais Eumeu seen xeex ak Bombardier bu katti daanaan la c'est normal parce que nit ku nekk am nga nooy gisee ben dama ne la su doon Bombardier man daan na wax Bombardier la nga xam ne da ngay xeex ak moom mu déclenché daje ak yow ak dooleem nga daan ko nag xo mais Bombardier léegi booy xeex moom dafay toog di la seetaan de xool la xool fi mu lay dóor ko téye la tëj loolu moo tax mu a xeexee te Eumeu Sène chaque jour boo ko dóoree corosé dafay def laaw remise lay def te fu mu dóoree laaw remise bu kii siggee bu dajeek moom bu ko dóoree dafay gaañu lu leer laa lay wax parce que distance bi la quoi distance bi moo dul yoon daal waaw man distance laay wax Eumeu Sène nag amul ko tolloog moom poite man laa daan mais distance bu Bombardier Eumeu Sène man Mbaye Guèye ah yàlla nag bu ñëwee ñëw na mais mbari man bay Guèye de daf may waar loo looloo looloo trop trop faralu ma nag Bombardier non dama bëgg mu clair faralu ma Bombardier waaw man faraluma Bombardier su ma doon faral Eumeu Sène laay faral parce que seen mooy géew la waaye mais dama la wax si làmb man li ma dund si làmb ak li nga xam ne ak li ma mën a bëree nga xam ne dama daan bëri pois lour boo xam ne mu mu sut fukki yoon a jë dafa muy bëreloo ba ma jeex mu ñëw daan ma parce que pois bi la Bombardier bu amee dal ñu indi ko mu wàcc tëj buntu yëpp ak gisuma fu la Eumeu Sène di jaar franchement parlant ah man de gisuma ko. am na favori combat Bombardier mooy favori bi kan mooy favori ku du Bombardier Bombardier moo yore roi bi moo moo daan champion yëpp mooy favori kan mooy favori <laughs> Bombardier mooy moo moo ëpp doole mooy favori. ba ma c'est-à-dire euh, Eumeu Sène bu daanee combat bi fi mu ko yóbbu moom xam na ko bu leer mooy doon le roi kuy doonati le roi waaw Eumeu Sène dafa ñëw léegi pour jël si la roi am xaw ma nag ban xam-xam la indi parce que entraîné na entraîné am pour indi ko xaw ma ko. xëy na entraîné na lu man daan Bombardier waaye daal dama koy gis daal man Mbaye Guèye am naa droit si loolu damay gis Eumeu Sène daan Bombardier daal dama koy gis. pourcentage su Eumeu Sène kon ñaata la pour yow. bon bari na santaas si entraînement bi lépp ça dépend mi ngi si entraînement bi. parce que dana na poids lourd chaque jour da nga koy daw waaw parce que Eumeu Sène pour mu bëre Bombardier pour man ci am dara dafay daw Bombardier déclenché moom moom d' accord te cooki bi da koy xool. parce que bu fay tere bu dajeeg moom ku day mais mën na cooki ak moom si kaw mu am déplacement bi nga xam ne que tey tey fay teg Bombardier si kaw bañ ku laal ko ba jee jël mu jaay ko Flyers te Flyers bu koy daal bu demee di ko viré ba pare dëj ko doog a viré mais Bombardier tant que yaa ngi taxaw moom mu capté la doo dem fenn dafa bari doole tubaarkalla dale boo la capté pare nga kon pour mu la boo jaalee si Flyers da koy dëj wër ko da ngay mën a bëree dafa diis. donc te xam ba ma dee moo la gën a xam ne ñëpp xam na ne si tànk yi lañ bëgg <laughs> jaar quand waaw léegi nag sàcc bi nga xam ne dañu jël buntu bi condamné na ko ba pare jël benn police taxaw si ginnaaw ak fi talam ah buntu ba du neex sàcc de waaye di nga bàyyi police ba nelaw lool <laughs> wala fital ba du fa nekk c'est ça le problème donc ama seen nag am na bu fekkee am na coffre boo xam ne que dina mën a daw gauche et droite di wër Bombardier parce que poids du ay bul daw de. ku mel ni Bombardier da nga koy daw boo ko lee mu rey la ku mel ni Bombardier du ma ne kenn taxawal jàkkaar ak moom di xeexam moom. ah doo naxat waaye yow tamit ki nga xam ne moo la pour doole fuuf man la ba pare du ragal boo naxantal ak moom te taxaw ko xeex boo naxantawul lag moom foo jëm boo leen jàkkaarloo ko muy jël ngay jël boo jëlee jeex na moom bu jëlee sa koow amul problème mais yow boo jëlee koom pare nga kon donc man damay bañ jël koowu Bombardier damay bañ aussi Bombardier ëmb ma dama koy daw gauche et te coffre la. nooy def ba du maanaam ba du la ëmb. waaw boo ko entraîné xam nga tey su ma doon entraîné Eumeu Sène dama koy wax na ko combat bi na si am physique waaw na si am coffre na si am sàcc na indi waane teg ko indi ragal mais bu indee ñeme. <laughs> yo ay mosuma daal ko de lu leer laa lay wax donc loolu laa koy ñaan moom mu ñëw indi loolu pour bëre loolu pour mën a am dara si làmb ci waaw. ñoom ñaar ku ci ne am na loo koy moytuloo ci morom mi. waaw Eumeu Sène dafa mën a bëre waaw Bombardier dama koy moytu euh, la man bu ko defee bu ñëwee Eumeu Sène mën na ko daan Eumeu Sène amul mbër mu mënul daan <laughs> parce que dafa mën a bëre te donc diggante poids lourd poids léger pois lourd bi moo am problème kooku nag xam na ko poids lourd poids léger poids lourd bi moo am problème mu léger mais est ce que poids léger bi xam na nu mu war a bëree poids lourd bi pour poids lourd bi am problème c' est ça le problème mais Eumeu Sène am na avantage yu bari si lamb ji am na avantage su déplacement am na avantage su condition te Eumeu Sène du ragal mbër la bëri na fekk champion bu nekk moom tamit aussi mais bu taxawee am nu mu mën a bëree ba mbër jee mën na am dara. yow tëggkat nga tëggal nga mbër ba tàyyi lamb ji ñu jëm nii ñoom ñaar ndënd am na lu mu ci mën a joué waaw ndënd si ndënd dafay joué si yëpp xam nga ndënd sunu maam yi dañ daan tàggoo làmb dañ ko daan jiin bàkk ko ñëpp ñëw taxaw suma pap bu la masaan wax bu tëggee ba pare bu la nee diw mooy daan diw mooy daan bu masaan tëgg ba pare bëri yëpp ñëw toog mu teg cóol bi dóor làmb bi bu dóoree rek automatique dama naan la kee tey jekku nan ko wala li demal léegi lii moo koy tajal kooku kooku ku nekk xam na ne cosaan am na si dëkk bi donc loolu man dama daan bëree amul ñoom tafaagee ñoom ñëpp bëri naa ñoom ñëpp amul ku ma si mën a daan laa la wax waaw ah, ma mën a bëree wax ma bërante de waaw. Eumeu seen ak ji seen galañ yi am na loo ñu ci mën a may. waaw parce que xam nga si ku si nekk sa géwél xam nga li nga nekk ak moom te ku si nekk sa géwél war na la mën a am loo sooraale parce que tey man su fekkoon dama entraîné Eumeu seen galaj bu ma dóor rek dinaa ko wax li ma ko def. daana ko moytul bi wala dóoral korose bi wala dafa laaw bi moytul aare bi dawal jël ko bu ko song dawal ni mu dóoree da koy dégg parce que su ma ko waxee ak moom répété ko tëgg ko mu xam na ko bii galañ bii la bii bii la ni nga war a sampee ni nga war a déplacé wo ni nga war a dóoree loolu am na si làmb mais ëmma lu par lu bëri li nga gis muy fecc temps yi yow looñ ci mën a on njuug boobu muy def rek waaw kooku dégg-dégg la ama seen xam nga nit bu xase dégg-dégg rek dégg-dégg mooy dégg na xaayaan dégg na daal parce que boo amul xam-xam wala mënoo bëri doo dégg parce que islam seen si fecc moom rek moo ko am parce que li mu fecc yëpp daf koy def si temps loo ko def rek dafay indi style boppam muy amul seen am na ambiance làmb et puis bu yaru la booy bu bien foo ko fekk dafay ree franchement parle amul xol boo xam ne comme yeneen bëri quoi franchement parle waaw. galañu ama seen non galañu ama seen bi am na lu mu koy indil moom si boppam. dañu bëgg dañ ko bëgg nga indi ñu rythme galañ bi <laughs> ak sa gémmiñ. <laughs> non mais rythme galañu ama seen xam nga ama seen njuug la def dafa séeréer. Hmm? loolu si mën a may yow. waaw njuug boobu liñ si may ma xam nga bu ne tëj ten day day day day dugg dafay am lu luy lu indi si moom mooy dafay dafay dox di yaab di ñëw xam nga parce que kooku mooy ama loolu lay feccee ba nga xam day am lu muy sentir moom ba nga xam ne bu sabari duggee rek xoolootul kan moo waral muy bég séeréer si si bég ñëpp di bég parce que bu njëkkoon robel da daan duggee te te prete te te prete kin kii teekin kin teekin te te taking, taking, taking, king, and taking, taking, taking, yaa ngi may fecc la waay booy dama sara non yéen da ngeen garaaw kaa booy bës léegi des na Bombardier Bombardier moom itam galañam loo ci dégg déedéet utan caaj caaj utan ci ci utan caaj léegi bàyyi na loolu parce que boo gisoon bu njëkkoon utan caaj caaj utan ci ci deux temps la utan caaj caaj utan ci léegi bàyyi na loolu déedéet breed déedéet breed kon nga xam ne léegi entraîné na loxo yi loxo yi yaawee ko léegi am na dégg-dégg boo xam ne day taxaw daw nga xam ne kii am na changement entraînement est-ce que tu comprends parce que bu jógee nee na utan caaj caaj utan ci ci utan caaj caaj utan ci ci mais léegi da nga tëgg ren mu ni taxaw nga xam ne am na fu mu teg boppam. làmb ju nare neex daal la daal. looy tàggatoo si Lutte TV point bon yéen maa ngi leen di ñaanal yàlla <clears throat> yàlla defal leen ndam te ay xale ngeen loo xam ne yaa ngeen doog a jóg te du làmb ji rek moo leen tax a jóg Sénégal moo leen ñor dangeen dem jàngi uti ñëw pour Sénégal kon yéen war na leen mën a jàppale ba yàlla def fi ndam boo xam ne yii ñëpp da ngeen di dem ba sukku si nekk gis-gis sa bopp parce que ay xale ngeen xale yooyu ngeen boo xam ne tubaab fukkal te li ngeen jàng da ngeen si boole yaru ak teey ak liggéey man ko du ko def di indi ay création yoo xam ne bu lay nit ñi toppee rek réew mi dina dem si kanam